xëccoo mi ngi am ci diggante 2STV ak TFM li ko waral di émission bi ñu tuddee célébrité et religion ñu tàmbali di ko dawal fële ca TFM te kii di Yaa Awa di ko présenté patron 2STV nag mer na ci bu futu ndax woon na sax PCA Sodav di Ngone Ndour pour clamer fa mbir mi ba Ngone nee na ko du yoon ñu di ko dawal ci beneen tele te ñu tàmbali woon koo dawal ci 2STV waaye yaa awa mu tontu nee ne émission bi célébrité ak réligion Amadou Kouyaté nekkoon caméraman 2STV moo ko ko may ci fàttali nag célébrité religion dañ ko daan dawal fële ca 2STV waaye Yaa Awa moo ko fa daan présenté ci saison deux mille 2018 2019 bi mu fa jógee ren nag dem TFM mu yóbbaale émission bi loolu daal moo merloo El Hadj Ndiaye ba jamono ji mu ngi yónnee huissier fële ca TFM.